borom xam bu mag bi kat ñëw na di Serigne Cheikh Ibrahima Keita mi nga xam ne mooy sëtu Sunjata Keita xam-xamam màcc mu donn ko ci ay maamam ñëw na Ndakaaru te ma nga ca deux voies liberté si rond point Pentola ginnaaw boo weesoo campénal li muy faj bare na ku ami rab da koy faj képp ko xam dañ laa liggéey demal ca moom ku bëgg a bayre moo xam nga bëgg a siiw demal ca moom képp kuy wut ay këyit bu jafale ci wàllu tukki mën na ko lii nga xam ne moo di ku tële di góor ci wàllu sëy man na ko jigéen joo xam ne dooma të mën na ko góor goo xamante ni da nga bëgg am soxna wala soxna ju bëgg am jëkkër kii di Serigne Cheikh Ibrahima Keita moo ci gaaw mbokk yi dama ni képp koo xamante ni place ba nga ne da ngaa yaakaar ni dañ la faa bëgg a jëlee dawal gaar nga seeti Serigne Cheikh Ibrahima Keita di praticien bu mag doon ko ci ay maamam Soundiata Keita roi du Mandeng mbokk yi numéro téléphone bi 77 664 92 92 76 136 78 30 70 750 18 84 borom xam-xam baa ngi noonu di Cheikh Ibrahima Keita loo fa indi bu neexee yàlla mu faj ko. salaamaaleykum Ibrahima waaye xanaa góor gi la jàpp Ibrahima waaw man yow laay waxal ana moo mënul doon waaye kay lii yomb na Ibrahima man daal. xew ba ma te te mon xew legi Ibrahima jaxal na ma jigéen ñangi japp sen kanam mi reud reud reud reud reud diw lu ne ñu def ko sen kanam wa mon man xanaa waxuma ak Ibrahima yow dama warul tontu. te ay nopp ñuy tegg dégg. boobu legi ma ngi wax wuy wo ma danga may wuyu man kay su ma xëyoo danga may tontu mais mooy nga tok fi nga tok rek faale wom nopp bu baax gi la la jox. mon dal xew ba ah Ibrahima man man dama yéemu sax di nga loolu noonu man dal man senegal senegal legi jaxal na ma. li xam léegi si xew yi amul fen Ibrahima yow lay waxal comme maa ngi wax ak yow faale woo ma maa ngi dem kër moo njaay te ñëwaat fekk la nag ma xaar nag maa ngi ñëw léegi ma ànd ak xiif bu pare di wax kon mën ma ko jaay dama soof wa caat caat ma ama sonal samay coor lépp mun ma ko def si biir salaamaaleykum. waaleykum salaam. papa nga jël sarax. waaw waaw lu koy tere. am yàlla jox la nga ñaanal ma nag. loo bëgg yàlla na la ko yàlla defaral. nga am saaku xaalis. ay waay. Ah! <laughs> lu nekk sama mbuus bi sax. bulbulaga. Ha? Ya, ilan na kanila. Hmm. hmm. <laughs> Ah! Ah! Ay! Amo nga pagkain, bayo gano'n. ñëw ñu mën a poser rendez-vous mu ne ma ñëw apa? mais gisuma ko hmm. gisuma ko fekkuma ko fa hmm. man gars yi jaaxal nañ jaañ mu ma jox heure ba pare jaañ hmm. ba yàlla lu ñu lu ñu dox nii bi laay doxoo si dara jaañ yow loo wax si euh, sëy léegi ah sëy léegi moom jangan moom dañ koy jangan jabar dañ koy téye na mu waree jaañ nooy wax si góor yi xam ne dañuy jàpp seen soxna di dóor damay bëgg a jam wala damay waaw yow jaañ ah léegi mii laa fi bàyyi sànq. dem ñëw Ibrahima di mbel mbel mbel mbel mel ni seku. xoolal sa loj ban heure moo jot. Ah, waxtu bi léegi mu jot waxtu gi léegi mu jot. Ah, Ibrahima sa woote ah. bari na de. ah Ibrahima loo bëgg a wax loolu du ma wax. waa dégg nga toog sa koor gi. yoo yow seetaane nga. Ibrahima mën nga naan seetaan nga naan seetaan